mbokk internet Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon tey ñu fas yéene tàmbali benn émission boo xam ne ñu ngi ko tuddee moo et mots de ñu fas yéene cee dalal ki ñuy wax maam góor Ngom di si waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu presse Mame Gor Ngom ñu ngi lay nuyu. Ah, man en fait ñoo lay fay. Hmm. di nuyu seen suñu mbokk internet yi ñuy déglu ah, di euh, rafetlu aussi. Euh, invitation bi ngeen ñu invité fii seen studio ñu war a waxtaan ci presse bi loo xam ne nii dinaan ci sawar trop. yow ñu fàttali rek yow yaay administrateur euh, seen site. point net ah, waaw seen. waaw seen man euh, de seen site point point sn bon je suis. Euh, ancien rédacteur en chef du journal La Tribune bon et ah. puis de, de du journal aussi Le Matin du défunt Matin de, de Babacar Niang et euh, ancien aussi directeur de publication du journal La Cloche waaw ah, merci ci précision yooyu. waaw tey li ñu bëgg a waxtaanee juste rek mooy maanaam fii Sénégal dañoo seetlu ne journalistes yi. joxuñ leen gëdd bi ñu leen war a jox gëdd bi ñu leen war a jox joxuñ leen ko. ñu bëgg a jàngat maanaam tey boo ñu doon wax loolu tey li ko waral la nga ñuy wax quoi pourquoi gëdd boobu pourquoi les journalistes sont souvent victimes ay attaque ay injures du genre yu demee noonu ko parce que wax ji bu bu buñ koy wax euh, mun buñ ko avant ñuy répondre ci question boobu. Uh-huh. dañuy rappeler lu bëri. li ñuy rappeler bëri on peut faire un peu l'histoire de la presse au Sénégal parce que bu ñuy wax presse sénégalaise yàlla a presse publique. il y a la presse privée. Aujourd'hui aussi, il y, a, il y, les sites Internet avec cette révolution euh, sur Internet. Uh aussi euh, les réseaux sociaux et tout. je pense ça tout ça ça, ça représente les média mm-hmm. donc moo donc euh, bu nu wax respecte média c' est c' est un peu à parce que ñàkk respecté bi mooy euh, peut-être am na ñoo xam ne nii jox ñu leen cër am na ñoo xam ne ils sont victimes de li wax de brimade wala wala yenn yenn détails yi wala même lynchage médiatique boo parce que en général da ngay wax ne journaliste la nga ñu ne non journaliste yi moom am fu ñu leen féetalee. exactement mais. malgré tout ça gars yi dañuy intéressé wu ci li journaliste yi def. voilà loolu la foofu laa bëgg ñëw sax terewul maanaam loolu ñu wax yëpp mm-hmm. maanaam saa yu ñu xëyee. Mm-hmm. même public boobu mooy dem envers presse bi. Mm-hmm. mooy dem envers journaliste yi information. est-ce que nekkul tam benn forme d'injustice envers. waaw non loolu loolu loolu am na ci parce que euh, euh, je pense que yoon la ni ñuy critiquer mbër yi di critiquer ñeneen ñi journaliste aussi mën na leen a critiquer parce que dama jàpp ne population yi aussi am nan regard ci li ñu war a li ñuy def parce que bu ñu doon def rek lu ñu neex du ñu critiquer peut-être mën nañ bañ a mais tamit euh, li waral journalistes yi tamit yu bëri ñu ci dugg ak affaire yu bëri yoo xam ne nii ils sont un peu vulnérables li koy waral mooy euh, y a souvent un manque de de de volonté politique et puis il y aussi un manque d'organisation. parce que volonté politique bu amee normalement ci média volonté politique bu amoon. am na lu bëri euh, li désordre bi mën nañ ko wàññi parce que état moom moo yor ay inspecteur du travail état moom moo yor yoon. moo yor lépp loo xam ne ni war na encadre la création des entreprises de presse ba pare ñi ciy liggéey aussi ñu respecter leen je pense que loolu état moom moo ko mën a régler léegi nag état bala ma ko régler aussi il faut journalistes yi seen jëmi bopp organiser wu. ci ci ay ay organisation yoo xam ne ni yu crédible pour euh, mbir yi avancé am na yu yu ci jot am ñoo ngi wax code de la presse boo xam ne dañ ko voté. Ah. mais ba léegi appliqué guñ ko. et puis damay damay jàpp ne aussi au delà du code de la presse parce que Sénégal lu ñu tumrankewul tumranke moom yoon bokk ci. Mm-hmm. am nañ ay textes yu baax am nañ ay textes yu rafet mais application textes yooyu ci la bokk parce que même euh, convention collective des journalistes. même ancienne convention collective am na ñoo xam duñ ko respecté. donc bu ñu indiwaatee beneen convention teg ko bu amul volonté politique ba pare journalistes yi organisé wu. parce que journalistes yi dafa am ay catégories il y a plusieurs catégories parce que am na journalistes yi am na patron de presse yi. am na état bi. te ñoom ñëpp ñoo ko bokk patron de presse yi souvent euh, duñ bëgg a jouer le jeu. état bi souvent aussi dafa am loo xam ne ni daf koy sëq ak ñoom ba yenn euh, décision yi du ko mën a jël léegi nag victimes yi mooy mooy mooy mooy souvent les reporters ñi nga xam ne ñoom ñoo ci gën a sonn. et puis ñooñu comme ñooy def liggéey bi yëpp bon man yàlla dafa def man dama teel a nekk euh, par kii dama teel a nekk responsable ci média yi mais je sais que euh, les reporters. c'est eux qui font le travail. ñoom ñooy jëm ci terrain yi mais ñooñu nag bu nekkul ci condition yu baax c'est la porte ouverte à à toutes les dérives mën nañoo dem eh, ci dugg ci yenn yi wala loo xam ne ni dañ leen ciy xeebe te lool du baax ci crédibilité liggéey bi je pense que pour liggéey bi am il faut organisation am yow SYNPICS sa ngi fii am na am na correct mais njoo yëpp dox ban war a dox ak lan war a def en réalité des na. il faut ñu organiser wu ku nekk xam. ku nekk li ngay def parce que yéen yéen caaxaanul leen keneen caaxaanul leen parce que da ngeen di ji ñëw wut seen matériel jël ay nit ñu nekk fi ay sénégalais loolu nit dañ ko war a encourager encourager parce que c'est une entreprise état dafa war a encadrer loolu parce que yeneen pays ak yeneen pays yëpp même dans les pays occidentaux yooyu loolu loolu mooy mooy mooy doxal réew. maanaam tey tey lan la ñu war a améliorer loo xam ne tey bu ñu ko améliorer woon bu ñu ko kii woon maanaam journaliste dinañ ko gën a jox gëddam dinañ ko gën a fonk. parce que euh, ñu ñu am na ay solution classique yu ñuy wax mooy euh, la formation parce que bala ngaa naam bala nga ne naam aussi ne fa mm-hmm. newuñu ne nag formation c'est une fin en soi mën nga bañ a def formation am sa talent di dem mm-hmm. mais nag loo gis euh, xam ko baax na ci même si tu as talent dugg ci ba pare yow da nga war a gëstu c'est sur le tard je sais pas mais nga gëstu ba xam ko ba nga xam ne ba mu wóor na leen lii Euh, day tax boo ko defee lii arrivé la ci lii waruñu ko defee nii papier une minute nii lay do demee euh, papier treize minutes nii la ñu ne la vingt six minutes nii la bu dee cinquante deux minutes euh, reportage cinquante deux minutes. li ñu war a jàng def enquête li ñu war li ñu war a jàng. jàng ba mokkal ko la jàng ba mokkal. bala ngaa bala ngaa tari da ngay jàng ba pare. je pense que loolu dina tax nit ñi gën la respecter. et puis leneen li mooy. au-delà de la formation il euh, mënoo def journalisme au Sénégal il y il faut maîtriser la langue parce que am na wolof mais am na aussi français parce que français la langue officielle. donc donc c'est notre outil de travail. fexe ba le minimum nga nga nga maîtriser ko ñi lay dégg bu ñu la déggee ñu woon na leen ne yow li ngay wax am na foo ko teg parce que njuumte moom mënta ñàkk. parce que euh, yeneen corps de métier yi tamit dañuy juum te peut-être li ñuy def mën na bañ a gën a gën a gën a jafe. mais dañuy juum mais euh, volonté daal franchement ku nekk sa jëmmi bopp wala yow nga war nga mën a defal sa bopp formation boo amul ay moyens dem ci euh, dem ci dem ci école yi euh, rédaction boo xas amee chance ba dugg ci il faut être humble parce que journalisme aussi c'est l'humilité mmh. da ngay foog da ngay war a jàpp ne chaque fois rek da ngay jàng mokkal ko mokkal moom mënu ci am. humilité boobu lu am solo la. maanaam waroo dem toll foo xam ne toll naa fii. loolu mënu ci am loolu ci am. parce que man man am na euh, exemple yoo xam ne nii euh, def ma marqué ku ci mel ni Mame Less Camara man bu ma nekkee rédacteur en chef euh, tribune depuis 2011 parce que man ñun ñoo ñoo créé woon. Hmm. mais moom dañu doon defal chronique mais daawul signé sax quoi. post it mais dama doon jàpp dama doon gis ne moom à chaque fois. bu bindee day insister nga xool ko. te même soo xoolee ba pare maam góor ce que baax na mais loolu boo ko boo boo jëlee ci kooku exemple ak expérience bi am. ak euh, plume yëpp di nga xam ne euh, papier waroo ko bind sax dem directement studio. loolu loolu warul nekk. parce que boo bind parce que yow peut-être yow moom yaa ko bind joxal n'importe qui même s'il y a man man sama jëmmi bopp man. Euh, Euh, boucler journal su ma koy def su fa kenn nekkul damay tiit il faut même bu fa kii nekkee ma ne xoolal ma ba xam moom parce que am na ci œil boo xam ne nii mën na ko xool mën na gis loo xam ne yow gisoo ko parce que mën nga sonn wala leneen leneen te public bi il ne pardonne pas. exactement le le public ne pardonne pas. loolu mooy lool mooy loolu mooy effet euh, pratique yi mais nag au fond euh, en profondeur il faut vraiment une réforme te réforme bi ce n'est pas seulement que les que les médias médias médias mais même au niveau des des médias publics. ah un état normal au Sénégal état bu normal. Mm-hmm. état boo xam ne ni vraiment il prône la rupture li xew RTS. donc dina ko dina koy wàññi li xew soleil da koy wàññi APS la ñuy def aussi ñu gën koo xoolaat. je ah, pense que ñooñu on les taxe comme des médias d'état. non c'est bon c'est média xam nga média c'est un média du parti. parce que média d'état on peut comprendre mais France 2 c'est c'est média la. mais RFI yi yëpp c' est l' état français. dañoo far français mais am na noo ci noo ci noo koy noo koy gérer. Mhm. nit ñi duñ xam ne sax lii média parce que journalisme journalisme la. nga nekk journal soleil nga nekk RTS nga nekk faneen si tu fais du journalisme tu fais du journalisme tu n'es pas contre l'État tu n'es pas pour l'État parce que ñun nekkuñu fi aussi du contre peut-être am na ñoo xam ne nii ñoo dañu jàpp ne journalisme ay dénoncé la yooyu mais Euh, c'est pas nga nekk fi dénoncer il faut pas faire la part des choses bu dee da bind papier pour pour informer tu peux informer les gens sans problème. Uh-huh. tu peux venir informer et quand informe on on, on se on respecte les faits quoi loolu mooy informer su fekkee nag da ngay jël position ne da ngay commentaire. tu fais ton commentaire sa commentaire ça t'engage. boo demee fële ne da ngay jël position contre l'État di def ay chroniques ak yooyu tu ça t'engage aussi mën nga ci am succès am ci bul jàpp ne loolu mooy journalisme. en réalité le journalisme c'est informer li ngeen comme ni ngeen ko wax ni informer à sa juste valeur. problème mooy il faut respecter les règles. ok le BABA nga respecté ko. loolu lu am solo la respecté règle boobu ak formation bi surtout. Ah, c'est ça tam soulevé nga question mooy conditions yi d'habitude. Mhm. conditions yi nga xam ne ci reporter la nga parce que bu ñu dëgg patron de presse yi moom. Mhm. daanaka du ñu gën a yëg jafe-jafe yooyu noonu. Mm-hmm. mais est-ce que jotul ñoom tam waruñ leen leen mettre condition yoo xam ne nii dina baax dina leen permettre daal ñu mën a def seen travail décemment. Ah. loo loo lool lool lool bala moo bala moo gën a am. condition de travail yi li ma wax rek mooy il faut une volonté politique ba pare il faut un environnement environnement médiatique acceptable parce que man li may wax bon man bien vrai que ma spécialité c'est la télé bon mais man presse écrite li ma ci def moo ëpp. li ma ci xam mooy environnement médiatique Sénégal actuellement. c' est mhm. très difficile. Mhm. parce que dañ lay wax ne la da ngay am benn journal journal bi cent franc lay jar y' a l' impression y' a tout ce qui tourne autour te journal bi dara assuré na la assuré wu la ne la day day jar te même bu jaroon sax boo ci jaayaan lu bëri sax pour nga génn ci problème la. y' a y' a la publicité qui sa qui se fait désirer y' a aussi la la la concurrence déloyale donc environnement boobu. il faut ñu xool ko xolaat ko def de telle sorte que euh, boo bu ku ku ku euh, investir ci journal wala nga investir ci leneen gi ci sa bopp. bon bien vrai que des fois nag am na ñoo xam ne ni il crée des journaux mais li leen ci li leen ci dugal aussi du gañe ci xaalis. mais ils peuvent chercher de l'influence. Mm. wala parce que boo yoree journal aussi am na ñu bëri seen journal ci la ci journal ci leen commencé am am am lépp ah, am mm, télé am lépp parce que à partir du journal tu peux tu tu peux gagner de l'argent xam nga fii y a y a y a y a y a les moyen de pression am na ñoo xam ne nii lu nekk lañ ci def chantage. bon loolu nag boo ci duggee aussi tu da ci dugg ah, te xam na yow da nga ciy dugg mais xam nga ne. peut-être am na leneen loo ci loo ci loo ci loo ci jublu mais mais mais du xaalis. Mm-hmm. boo jëlee reporter aussi wala keneen dugal ko ci te mu woon na leen yow mënoo ko fay. mais moom aussi souvent aussi ñi leen di problème bi mooy ñoom dañ ci dugg euh, les jeune journalistes mën naa noo dem fenn dugg fa parce que naa bon amuñu dara loon def nañ ci duñ fa dugg jàpp ci mm-hmm. mais nag loo ci jàpp jàpp jàpp au moins na nga ko def parce que yow moo la neex nga def ko. dawal waaw. bu la neexul aussi bu bu la wóoree ne yow euh, gisoo ci sa bopp il faut prendre ses responsabilités. ok waaw parce que aussi mën nga dugg ci dara aussi xam nga affaire yi euh, ku nekk sa magam bopp nga. man mhm. ah, nga nekk fenn mais objectif yi man ça ça peut différent mën nga nekk fenn mu wóor na leen fii bon peut-être fi xaalis mais mën naa fi jàng dara. Mhm. xam nga loolu mën na nekk. mën nga nekk fenn aussi nga ne fii dafa am benn moment boo xam ne ni ci fi laay nekk après bu ma fi amee léegi lii ma jóge fi dem faneen xam nga loolu yëpp mën na nekk mais euh, dans patron de presse une entreprise comme toutes les entreprises boo jëlee ay nit même si c'est un am na temps boo xam ne ni pour stage la am na temps boo xam ne ni pour contrat à durée déterminée la am na ay aussi li ci laxasul yëpp ci contrat am na ci mais fii malheureusement je parle en connaissance de cause. Mhm. ñiy respecté loolu lu lu. lu néew la lu néew la quoi waaw. bu ñu la dégloo daal problème bi ça se à plusieurs niveaux. fu nekk il faut ñu apporter fa solution. waaw c' à plusieurs niveaux ah. à mhm. plusieurs niveaux c' à plusieurs niveaux je pense que il faut une volonté de la part de part et d' autre quoi il faut une volonté de part et d' autre il faut une volonté il faut du sérieux loolu moom mënu cee ñàkk tant loolu amu presse bi la presse va mourir de sa de sa de sa belle mort surtout euh, la la presse dite dite traditionnelle parce que mënoo am ay quinze quinze journaux quinze quotidiens ay journaux ay cent francs cent francs mënoo ci dara loolu mënul nekk. mais est-ce que loolu moo tax kon les gars di daw tam di dem côté presse en ligne. parce que c'est une prolifération. waaw waaw mais mais mais mais à aussi presse en ligne bi ça ça ça reste d'être la même chose donc il faut il faut il faut mu parce que bu sérieux wul parce que Sénégal rek ngay gis presse ay journal cent franc de sous région bi yëpp ay trois cent ngay gis ak ay deux cent mais journal cent franc bu loo ci man journal cent franc mille mille mille journaux mille mille mille mille mille exemplaires soo ko jaayee cent cent mille. waaw ah, peut yeneen moom moo la si mën génn. publicité yeeg insertion mais publicité yi c'est pas évident. fii mën nga fee fii fii nga fee yor journal une semaine wala un mois doo am sax benn insertion bu cent mille. donc loolu c'est pas évident te impression c'est très cher chaque jour au moins di nga ci dépense cent cinquante mille waxuma la nag ay charges yeneen yi salaire yeeg dem génn dem reportage ek yooyu yëpp. xam loolu yëpp aussi il faut ñu xoolaat ko bu ñu bañee nax suñu bopp. au niveau des télés et puis au niveau des radios aussi pratiquement c'est la am chose marché publicitaire bi demeewul noonu. waaw donc il faut réguler le marché publicitaire euh, comme li lu ma dégg benn waaye doon ko wax keroog. ñuy xool publicité bi selon la la qualité de l'organe et puis selon ses capacité euh, sa notoriété et mu bañ a nekk loo xam ne nii ay lijjanti la rek quoi bu bu yaa neex la kii laa lii laay jox kii lii laay jox kee que dans toutes les sociétés organisées. Uh-huh. publicité ça obéit à des règles. parce que mënoo tëb nii rek naa da ngay def da ngay jox kii publicité jox kii nangam nangam parce que bala ngaa jox ni publicité day fekk yow mu obéir à à certaines donc loolu nag fekk amul ñun ñii ñëpp ñu sommes responsables. parce que ku nekk aussi da ngay toog euh, di gérer sa intérêt. Hmm. waaw comme genre partage égal boobu nga wax tam maanaam nemmeeku nañ ko ci côté aide à la presse bi am na ñu ko fay yuuxu tam naan peut-être tollale wuñu affaire demee noonu gis nga ne li ñuy à la presse doy na aussi ndax séddale bi na jaar si yoon. waaw je pense que aide à la presse li ñu wax naan euh, bala ngay may nit jën nga jàngal ko na muy nappee bi à la longue day dem ba du jariñ du jariñ lu bari quoi parce que. presse bi day day màgg nit ñi dañuy bëri. Mhm. Euh, déjà la presse bi bëriwul ba pare bu ñëwee tamit lan lay servir il faut se poser ces questions. parce que aide la presse bu ñëwee sa directement ci euh, euh, compte bancaire euh, patron de presse bi lay dem donc des fois sax mën nga bañ a yegg aide à la presse fan la fan la jaar. donc aide à la presse normalement bu ñëwee da ko war a sentir ci ci ci rédaction bi. gis bokk au moins ñu changé fee dara wala euh, reporter yi yëg ci yëg ko parce que am na ñoo xam ne am ay correspondant yoo xam kenn du leen fay mais loo loolu moo tax état bi dañuy def fournir ay efforts yoo xam ne nii c'est c'est vain quoi ah c'est vain manque de rigueur boobu nag il faut il faut il faut ñu ñu ñu xeex ko mu dañ parce que bu bu amul rigueur rek parce que aide à la presse war ngeen ci am am keneen war na ci am keneen ak keneen ak keneen mën na ci am mais ñi ñi ci war am ñëpp suñ amee du représenté dara. donc aide à la presse boobu mën nañ ko def de telle sorte que li gën. Mhm. mooy ñu fexe ba publicité bi nit ñi di ci am environnement médiatique bi mu am solo. Mhm. même si bu même si euh, bu bu état maison de la presse ak fii. Euh, mënoon nañ de def de telle sorte que ñu tabax fi peut-être leneen loo xam ne nii médias yi ñu bëri ñu bëri mën nañ fa nekk. wala leneen la wala wala yeneen détails yi wala am na yeneen ndimbal yoo xam ne nii moom moo gën a am njariñ aide la presse et puis aide kii euh, code de la presse bi code de la presse mais comme c'est du sérieux ñu def de telle que dañ koy appliquer. Ah, parce que aussi mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo xeex aussi loo xam ne ni presque léegi mat dix ans nga ci xeex. ñëw te teg ko euh, doo ko appliquer. lii nan nan ko appliqué. retard application la nan ko nan ko def nan ko teg ba pare appliqué ko. parce que bu ñu ko appliqué comme ñëpp d'accord nañ ci. journalisme yi ñoo ci jiitu ñoo ko def ay CNPX ay CORED ak yooyu ñoom ñoo ci nekk ba taxawal ko ñu voté ko ak yooyu yëpp mais léegi nan ko appliqué. te bu ko appliqué nag ñëpp xam ne dañ koy appliqué parce que dëkk aussi il faut moom am yoon. loo yaakaar ne moo yéexal appli application boobu. non application bi li ma li ma jàpp ne moo ko yéexal mooy xam nga fi mu toll nii nag moom loi moom mhm. euh, président moom moo moo moo fi sës. bu fekkee jaar na assemblée président moo ci des. mais man nag franchement damay dute ci application bi parce que damay gis ne comme li ma la ko waxee ci début mhm. euh, convention collective bu mujj bii nii bu nga xam ne c'est c'est une c'est une vieille convention collective sax ñu ci bëri duñ ko appliqué. am na dangay dem ci entreprise de presse yoo xam ne mosoo fa gis inspecteur de travail mosoo fa gis leneen ak leneen mais fii am na groupe groupe de presse yu mag leen di gis nii mais bon y a c'est juste sur sur sur. Euh, tur tur bi ngay gis nii mais mais y a rien donc loolu yëpp nag état moom moo ci mën a jóg parce que parce que mënoo tëb aussi nekk Sénégal euh, di di di gérer yenn détails loolu mënu nekk. monsieur maam góor Ngom la mooy nekk sa kàddu bu mujj. waaw bon di leen remercier rek euh, ci invitation bi et puis di wax ne émission bi émission bu am solo la parce que aussi. wax ci ñeneen ñi baax na mais wax sa sa sa sa mbóoti bopp tamit baax na ci te wax ji yëpp tamit luy avancer la parce que boo boo mënta wax ci sa bopp ba avancer dama naa doo tal sax wax ci ñeneen ñi quoi donc euh, ñu wax loo xam ne nii da wax aussi de manière impersonnelle wax loo xam ne nii juste c'est pour pour pour je pense que émission bu mel noonu dañu koy rafetlu bi ñu gën a góorgóorlu parce que presse mënta ñàkk dans une démocratie am na ñu naan quatrième pouvoir même si am si on conteste ça. mais presse moom dans tous les cas démocratie moom ci ñàkk donc il faut ñu organiser ko mu am doole ba duñ fi nekk naanu comme ay li jaat di wax naan ci kii yëpp naa patron de presse acheté yooyu yëpp. Hmm. yooyu yëpp nekk suñ ginnaaw je pense que loolu moom mooy gën a euh, rafet ci presse bi te bu presse bi rafetee je pense que une presse debout c'est une démocratie debout. comme fi nga tëjee noonu wax nga lu am solo quoi comme que maanaam ñun ñooy waxal ñeneen ñi jot na jot na tam ñun ñu mën a waxal suñu bopp. Ah. war a taxaw défendre suñu bopp. Ah. yaakaar naa sax même sama prochaine émission loolu may nekk thème bi incha allah. Mm-hmm. kon mbokk internet Sunugal 24 yi ñu ngi leen di gërëm ci teewlu bi ngeen teewlu di leen jox dig daje beneen ay bés.